ma ne yaa katoo aji saar wala katoo aji saar man Sokono stress dootuma ci werante ndax li ko tax yaa demoon Sweet Beauté boo fa demul woon kenn du la ci wax Ousmane sonkoo nga nar jiite réew taxaw di dàgge sante lépp lépp lépp lépp lépp wax ju bëri rek moo la koy yàqal mënoo bàyyi sorti yi ngay sorti di xas jigéen ñi yow dàngin dàngin dàngin gars yi xam ngeen leen mooy dàngin mooy màggetu golo golo gu dem ba màgget mooy dàngin nga tiim doomu jàmbur di ko xas naan kaan golo gu AVC dàngin bu AVC ah nday xat yi bégal na Sénégal yi dafa AVC ah am na ay artistes yu bëri yoo xam ne dañoo AVC woon a ah, si Sénégal ñu yor feebaru AVC yëpp mere nañu la Ousmane Sonko yaa bon mënoo bàyyi xase yi ah yaa demoon si wut bote loo fa doon wut dàmpalu yaa dàmpalu ñu woo la nga taxaw bañ lànk ànd ak ña nga àndal ne doo wuy ji procès bi aji Sarr dem wax la muy wax ca procès ba sénégalais yëpp dégg ko amoo looy def dul génn naan dangay xas jigéen naan dàngin ah yow yow war ngaa xaste nga nar a jiite njiitu réew li ma la yàgg wax laa lay waxaat rek doo masa doon président ndax président warta xaste ku jiite warta yàq jigéen te yow Sonko da ngay yàq jigéen Adji Sarr mi ngay xas sa moromu doom dong la te yaa demoon suite bëte nañ ko wax te dee boo fa demul woon kenn du la wax di wax suite bëte mais yaa fa demoon loo fa wuti woon suite bëte dama ne foofu du hôpital ay caga ñoo fa nekk katt nga Adji saar moom du ma ci werante maa ngi ñëwaat bu dee Ousmane Sonko moo ko def jëf ji ñaanoo trop waaw waaw Adji Sarr nee na moo ko wax may dégg devant le juge Ousmane Sonko dafa daan tëddee di ko tëddee di ko tëddee ay yoonu yoon ba noppi di ko tëddee ci bun maanaam fi muy demee duus man looloo ma ci gën a yéem def naa ne benn jigéenu jullit warta nangu loolu ñu lay tëddee ci bun est-ce que dëgg la sax est-ce que c'est vrai. xaw ma de yàlla rek xam Adji Sarr daal daawul wax bu njëkk waaye léegi nag mu ngi wax te wax ji muy wax képp ku ànd ak Sonko wax ji du la arange de man nag moom Europe laa àndal bu ma ci kenn saaga ndey Adji Sarr ak wax katt ci bun lii de kaala la may lii kaa bu rëy la waaye nag bu wax ji bëri bari ba ngeen fàtte sama seenu bercaacu bi ma takk bercaacu oro bi rafet na trop gars yi neexul ba neexul waaye Adji Sarr mii li ko Ousmane Sonko def metti de wala boog li ajisaar wax ni loolu la ko Ousmane Sonko def loolu doo mu jullit sax war koo def sëy ak ba ci bun gi bun bun pour day la ma ni bun daal kenn du fa dugal kooy buy bun daal pour puub la Adji Sarr li mu wax wax ji réy la de gars yi bàyyi leen ci xel dama ci maanu woon nag waaye waxkat laa mënu maa ñàkk bañ a wax di ko watal ay cokkam aji saar bu dee loolu amul ah wax ji ñaaw na de man tee maa ndax man maa ngi sama Europe mu ngi baax waaye lii ñaaw na de ñaaw na trop aji saar nag jamono ji daa commencé di wax wax bi muy wax nii du arrangé patriotes yi de patriotes yi waxu aji saar bi du leen arrangé de yàlla na Sénégal am jàmm